te loolu it moo nekk ci man te fasuma yéene kenn jox ma ci dërëm mu dem ci waram daaru ma jaar dee ko mu dem feneen loolu moom duma ko def ah, kon mel na ne kooku ab jataayam kooku mu nekkam mu sa noppalu mu sa liggéeyal boppam dara it Yo, bueno. nan boobee bis xatan nga ñëpp yow la yàlla jàppale yoon nu sunna bi ñëpp yaa mën a séddale ak ya yaa ko mën a bay di ko joxe faal soxla woo ca dara yow yaa tax nu texe faal yaa nu mën a mën file mënal mu fan jëm yow yaa man ki lekk mani fulaay jëm yow yaa nu defal saadatu daara yi

يبلوك تربيهنك عيدان يوم لقير بما تلزم ذكر في ليل ونهار فعلت رياك سكر يا رب يا رب يا رب فجواجيك منداني ممير فعل لأن جل القرآن مقلقه تفسيكو بيه يا الله ما يكون muy jàng ak di jàngale ak di taalif làq xam-xam yëpp na kaarif mu dem ba jeexal xam-xamub sariya nekk salma sidda amul tariixa mu ni abdul yàlla man laa gane kon istixaar ñu wan ko ngir may siddane borom tuuba borom tuuba bi ñëpp def nii ñu magal xadimu rasul ñu di ko wër ba gis ko jox ko léppam daal di ni yàlla gi ni ku kenn nax boppam mu daal ni wër naa ko boole asaanaaw suuf si gis naa yàlla gis naa yàlla daw si leen gaaw mu ne ko nekk yàlla ak sariya mayu léegi bi lépp ak xaqiiqa xam nga liggéey ba jaaxaloon ñor yàlla liggéey ko lépp jiitu ànd ak donga donga Cheikh Ibra Fall رمضان فضل سبب خاص القدم وحدي يا من لدي ويبر يا الله ما من في فتل كل جميع نصر عندي بنو دجيك في خيمة فعال أكسرين دجيك داخلون ففقس اللي بجحك خادم رسول أيوه فعلنا قل sonoon mënu laa suul fekkoon nga làmb yeeg sabar yi daj yiw mi yow yaa ko dogal yaa Ahmadul Xadim Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall lépp Cheikh Ibra Fall lépp yow foot na sunu xol def ci maa ngay bu bëri yaa bàyyi faal farjaayaan ay bu yow foo ma sa dem du ko jéem adunay du ci faal kaalam bi faal du tukkiim ew foo masa dem ful góor dootu ko jéem adunay du ci faal kaalam bi faal du tukkiim Cheikh Ibra foo masa dem ko jéem aduna tukki faal daanam di faal dootul kii ay foo masa dem dootu ko jéem faal aduna tukki daanam di faal dootul kii yow foo masa dem defalu góor أهل فعل فوق مسجد Thank you. lu góor dootu jéem a adduna tukki faal salam faal dootu ji ew dafa lu góor dootu ko jéem góor dootu ko jéem góor dootu ko jéem ba adduna tukki faal salam faal dootu ji Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Mbacké Soxna Lo Serigne Mbacké Soxna Lo li ñëpp def nii ñu màggal Serigne borom Taif yow la xool na yoo soxoroo ay Mbacké door tey defee woo ñàkkoo xorom ñaaw loo doomaas la ñuy tëkkale gaynde la juru ko la rek Serigne Mbacké gaynde juróom-guné. Moustapha Dul yitti gi soxla ci jaas ne kooka moom barale. li tax nga mel ni nga di woo ku ko mooy jikku mbir yi nga lamboo samaam ja jàmbaari islam gis kor. bunta yaa talawet yaa karim ñëpp nga ndax doo gan tuddoo gëne li li tax nga xëy jiitu mbooleem nit ñu baax ñi fi gën ay ñëpp ñëw ne fi yow ñooy ay waay ñooy ay ñooy leew yaa matale bokk ak i jàmbur ay am si yow ku ñëw nga teral ak dab woomal ko doo jeexal te doo dikkili yow yaa di ab sang gis gor mun talaat talawe Cheikh Mbacké Cheikh Moustapha Cheikh Mbacké Cheikh Moustapha Cheikh Mbacké Cheikh Moustapha si naa leen yàggale ayaw yaa mën a mën yaa nopp yaa bari jom Cheikh Moustapha bu jox Cheikh jox la ngay dënale sëñ Mbàkke sama am ja Cheikh Moustapha Mbàkke sama am ja Cheikh Moustapha ak sa baay ba lañ ne soroon yow yaa matal loo boole cay bur yàlla mën a berale ay mbàkke doo gàntu nit ci yitteem te doo xool ci sa wax doo fàtte doo fàtte doo dimbali muy dox ba tëli yow kër gu sedd nga neex me ñàkk lool ak itam duflif nga yaay du defet yaa baax ci waaye yaay du bi xaral